Bacham mi. lan ma ne nga fay Aminata Bacham mi fay ko fay ko fay ko. man nga man waaw fay ko waaw. mais été waaw yow laa waxal fay la Aminata Bacham laa wax. waaw wax ni man napp li tax ma woon leen ren rek danoo nekk ci weeru koor te ni ñu démarré nii bu fekkee ne noonu la ñu nar woore day metti ci man Cobra Cobra fayal Aminta Bachan yow maa ngi xaar ba nga tegati am Aminta Bachan ci sama biir wax mais Cobra man waxuma ak yow mais xanaa sax nga respecté ma yow daal naa déggati Amity Bachchan rek man naa déggati Amity Bachchan ci sama kaw yi wax yéen ma may dégg bu yëpp weeru koor la ñu ne te man fi mu ne damaa soxla jàmm man moom lay wut ku yebu rek. ànd man ci jàmm ji nga xam ne moom laa woote man mënumaa dëkk ci mami mami waaw moom fayal kii fayal nga fay amita ba caaw te yàlla suñu borom mënumaa dëkk ci di leen àtte am Cobra indil Buya Seen te nag wax dëgg yàlla man amatuma sax doole ju ma leen àttee damaa bëgg sama kër gi mu aw ci yoonu ci hiérarchie comme ni ko tubaab di waxe na mag jiitu gone topp ci ginnaawam bu yëpp yàlla dogal na yow yaay sama aaw fii kër gi yaa fi jiitu am na loo xam ni da nga koo war a nangu parce que yow yaa leen expérience fi yaa fi jiitu yow am na loo xam ne waratu laa jaaxal kii xale la te xale nag <laughs> da koy wan li ko mag waaye bu tey boo defee lii ma def la mais loolu tànk yéen ngi ci dox kër gi du am jàmm koñ bi yëpp nag xam na nit nekkuleen ci jàmm ndax man saa yu ma génnee li may njëkk laaj mooy waa euh, euh, Seck lan moo xew sa kër gi damay sax mu jërus yërëm leen ma nag ndax fi ne sonn naa ren dama bëgg woor ci jàmm ndax man am naa xaalis ah. kon war na maa mën a dund dimbali ma ngeen nekk benn joxante leen cër parce que boo leen joxantewul cër kër gi du mën a neex yow yow lay waxal li nga def démb ça ne se répète plus yow laay waxal mu ñaar. waaw euh, ma xool ma bañ laa xoolit euh, mais sama làmmañ mi ngi wax te yaa ngi may dégg. kon kay léegi nag jàkkaarloo yow jot na dama ni li may wax man. ragaluma ko. ba waaw li may wax man ba tey ba tey man yi ragaluma ko dama ni dama ni Cobra li nga def démb bul ko répété. parce que xam nga boo gis nga gis nga gis nga gis nga loolu tax ngeen jote noonu dafa oyof lool da ko fekk may lim ay yére mais bàyyi ko mu lim sama yére. aayewul maa aaye maay lem. non non euh, non yére moom kay gi bokku ci man samay yére ku jot lem la. man loolu seq ma ko benn jeeg maay lem maa aaye maay lem. kon xam nga kon yow yaa tooñ. kan moo tooñ. yow démb yow yaa tooñ parce que maa ngi wax yaa ngi wax te ba léegi ñii kenn waxu ci. ah waaw noonu nga wax man li nga ñu benn. léegi nag nabb nabbee bi dafay jeex damaa bëgg nga xam ne yow jabar nga. <laughs> waaye dañ laa tuuf gàllaaj ba moom wala lan. non déedéet. eh dañ laa tuuf gàllaaj ba moom wala lan. bànneex man la de El Capo verser man mi lay bëggal guddi gu man sa man mi la mënul lu jeeg bu sëy ba dayee mu man ah <coughs> waxal keneen waxal keneen yàlla. moom daal. <coughs> ah yaa tooñ ah. du ma la ko dëpp. may ma sama jàmma yaa tooñ yaa ngi may dégg sa veer nga mel ne ku kataray yow ma la may sa dafa ba xaaral ma ñëw man benn jël ma yàq benn jël ma yàq ba maa ñàkk chance dëgg dëgg dëgg dëgg ah, dootul amati si man dootuma ko defati xëy seytaane nag moo ñëwoon démb rek waaye maa ngi jéggalu bu baax a baax baax rek da nga jéggal ma bu baax nag maa ngi jéggalu de. maa de Seck. jéggal naa jéggal naa la seen caali. jéggal naa la seen caali. jërëjëf kontaan naa bu baax. maa ngi jéggalu bu baax. waaye maa ngi jug dem jox ma dépense bi. ah billaay maa jërë yërëm. Ah. man coow dafa xajul ci man du ma nitu coow ngi dem Màkka. waaw te loo bëgg a añ ëllëgee ndogo. waaw loo togg rek loo togg rek baax na. damaa jënd ay côtelets loo defal la tagine. mu dul njee tax. waaw gis nga boo demee marché. Mhm. yow daal loo yëg rek togg ko. Ah. moom nga bëgg yow loo bëgg rek moom laa lay defal daa nekk sama jarbaat bu baax si man ah maa ngi dem dégg nga <laughs> ah, waaw waaw du bari ñetti doomu soble rek lay am rek eh, jibi hmm. yow loo loo ko wax mu togg ko loo commandé banaana nga wax banaana waxuma banaana de banaafa pa banaafa banaafa waaw ah. ah. eh, kii bu yaseen bul togg banaafa de bul togg banaafa bul togg banaafa de toggul li nit ñi xam rek waaw tey ngaa ñam banaafa eh, jibi ay euh, banaafa yooyu yëpp. nijaay parce que da koy togg kenn bëggul banaafa mu indi coow la. loolu ci maa ngi ci ci coow doon wax. Ah, ci coow loolu nag laa bëggul wax ci. waaw nijaay nijaay fulla de laal xamewul fulla. naka maa xamoon ci yow fulla. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye sa sa jaan bi xaw ma Cobra la xaw ma. sa tante Cobra la. bu ma wax tante. du sama tante benn tante laa muy biir tante day yaru te sa jabar ji yaru nga baal ma ci wax ci ndax ñàkk laa respecté moo tax nga mu toog fii ngay wax ak moom déglu la gis nga xale bu yaru day màcc tàngal ba yéey sa gune ngaay boo yara di ko ah, loo yor mu wat te sa jabar ji looloo ko tal mm-hmm. te yow nijaay dama laa xam ne xam nga daa daayaay daayaay waaw mooy lan daayaay du tàkk-tàkk wax ma daay de daayaay laa wax mooy bonaatu géej ah mën naa géej waaw daa yaay waaw. boo ko jibee rek day dugal bopp bi yow bu la mami Cobra ju jubee rek sa bopp bi ñu nga koy def dugal ko pour lan. bëgg wax ne. da ngaa wax ma waxoon dañuy nekk góor ci kër gi. góor googu faaw taxawee ko. man yow kon daal da bëgg wax ne man daa yaay laa daal. non la rek ndax noonu ngay def daa yaay lay def boo ko jubee bopp bi noonu koy def. Hmm. nuñ góoree ci kër gi loolu nga ma wax taxawal sa kër gi jàmm ji yaa ko mën a indi kenn du ko indil. wala nga bàyyi ma gérer kër gi man eh jibi man ne ko dara de nee naa ko yaa tooñ de fii la toog ma ni ko yow yaa tooñ man dëgg na bu ma ci kaw sama ma ko ace bi dëgg dama ni ko yow yaa tooñ hmm. looloo ko tax mer noonu mu dem noonu <laughs> man faaliwu ma ko de hmm. man faaliwu ko man meram ak kontaanam laa yemale man dëgg ma tax di wax te dëgg laa wax ndax dëgg la lislaam bëgg waaw amuma fu may far amuma fu may far waaw nag daayaay boobu nga man jaaxal na man du ma daayaay de man je suis un vrai <laughs> man sama kër benn kàddu la te man maa koy wax waaw nag pare bu ma de hmm. waaw ci biir laa koy fekk බයවෙලා Cayó. ¿Ganan los geos? ¿Cobramos de la de bajarle? Bang bimom lu mide fi. Cobramos de la de bajarle. Cobra Cobra génnal ci man bàyyi ma danga nga wàccee say yel lan say yel wàccee ko sama lal sunu lal kii sunu lal lal bi ma tëdd du sama la da nga maa yëpp wala yow da maa mii yow man ngay humilier samay kanamu noonu di def lu la neex di ma toroxal di leen jox dëgg ñoom yow ñetti yoon ngay jël dëgg di ko jox ni sama kam di ma yuuq di ma gëdd di ma def n'importe quoi di ma def lu la neex man waaye di xam lépp dëgg la hmm. du gis nga valise ah, man baa sax laa ko tegoon ah baa nga ko tegoon waaw du xam nga ne yow valise bi jege na ma yow tay nga mën a anam waa léegi loo man tay nga mën jour nga dëkk di ma toroxal di ma def naka sunu noonu te boo ñëwee mel ne du woon yow non yow yaay eh, ma na toroxaloo ma déedéet waa def ma seen kanam Cobra seen kanam nga ma toroxale chaque jour bii ma ñaari yoon ñaari yoon nga de ma toroxal foo ko mukk subhanallah loolu bu ko waxati mukk su loolu bu ko waxati mukk Cobra man man defuma la dara de defuma la dara. defuma dara waaw. woote sa réunion. waaw ma teg samay ind di féexal sama xol nga di ma xal jóge ci loolu waxaatuma dara nga yëkkati ma dox gën dëgg jox leen naan man maa tooñ maay nangam man daal yow xamal. xaw ma mujj gi lu may nduroon waaye di nga xam lépp dëgg la yow du ma la wax man. waaw non leen doon recadré waat rek kër gi laa doon recadré. waaw yow yaa xam ak sa recadré. doon waxtaan ak yéen. sama yónni wu ci parce que waxtaan ak njaboot. sama yónni wu ci loolu dong la mais loolu amul amul ngaañ loolu loolu amul ngaañ. dama ci boole sama man man tooñu ma la de. riitaane weesuwul nga naan ko nga naan nga naan pëllu man maa ko tooñ. yow man maa ko yow. man mii man. ah yow waxoo lool. na neex. non man nga toog ci digg saal bi wax lu neex tey may leen ndam may leen ndam suñ toll boo demee génn kër gi lu ne lañ may yàq di reetaan di kekku nga jë man première dan nga yóbbu ma ba zéro dan yow kon wéeroo déet man man de xamu xamutuma sax ku tooñ. ah doo ko mën a xam. waaw ah, man xamutuma sax. ndax yaa njëkk taxaw jiiñ ma ne man maa tooñ man ak ñoom ku tooñ. léegi ñoom ñoom ñoo la tooñ. ñoom dellu fa ko waxee nga waxaatee ko. Euh, ñoom ñoo la ñoom ñoo la tooñ. ñoom ñoo deful lu yoon. ñoom ñoo la tooñ. Cobra nag da koy dem waxaat fa nga ko waxee woon yow ah? yaay dem fa nga ko nga waxee waat déet loolu ëpp naa def xam sama yoon nekku ci bu ma wax loo ndaak may sama jaam non loolu gàcce su ma demaatee naan leen eh. sama yoon ne yéen a tooñ Cobra sama valise bi daa jóge na waaw léegi xam nga ni man du ma des loxo loxo ngi taxaw xam nga ma man Eh? man ngay waxal de. waaw ah, mën naa def nii ma. subhanallah subhanallah. topp ma chaque jour. subhanallah waaw ko. sa jéeg bi mel ni poul mbari sa jabar saytaane. mais nag lu may bëgg a tudd nga yëkkati dëgg jox leen ko di ma toroxal ma teg sama indo di soulager di féexal sama xol nga may torox ma neex ma neex de. waaw na neex kay waaw waaw na neex de. man jeeg bii man jeeg du ma dégg ko ndax jeeg attanu suma waral waaye bul fàtte loxo bu ma bàyyi loxo nga taxaw te valise ba du man waxi valise kay moom bëggu fi sax tudd hmm. man yaa ma xamal ni sax lii valise la ah xamoo ko déedéet xaw ma ko woon sax waaw waxi valise bëgg ko tudd wuy ma te maa la tooñ damay tuub hmm. diis na sax ci borom kër guy tuubal jabaram waaye dinaa ko def ci biir néeg bi waaye na yem fii ay maamam. waaw na. maa ngi leen di ma gën a maa ngi ñëw ñun faram maa leen. waaw sama jëkkër ci maa la bëgg li ma xamal. waaw li nga ma tàmm. waaw yow xam nga ni man damay géré. Mm-hmm. waaye yow xam man yow laa bëgg. leen rek laa lay ñaan. lu wàccee ci valise man valise moom mu ko tegu ci man bu ma ñëpp bawee te bawuma sax man du ma metti bu jëlati valise maa la ñaan loolu dégg nga léegi nag gannaaw ay wu ci yow te lislaam day tere lii te ci weeru koor lañ ne may ma rek ma génn man damay yàqante ay man nga ma tënk ba nga yaakaar yaa ngi tawatu yàlla fekk suuf. <laughs> Getirin przez wariaty, my zabili, my zabili, markaj! Xam nga fii ma fi gis ma doon joué rek te da jëkk chaque jour dina kii ay waay kër gi chaque jour yàlla nay am ay chaque jour cent mille ma bokk sama nag un million te lépp ci mer laa koy jëlee ca kër ca kër na sant Seck ba ma waaw tànn dama ko marché kon ba tey looy def ci kër gi. mariage kilifa bu demee bay ay kàddoom safatu ci këram nekkatoo kilifa. mariage moom yaa ñu woot woyte woon fii yàgg amul sax waxtu waxtu rek amu nga def lii yaa woote jàmm day def jàmm di wax jàmm oui looy def fële. Euh, looy def fële. waaw c'est que fee euh, kii sandi la sandi la sandi la waaw bàyyi la ci mami. daf maa joxoon yóbba yóbbante moom laa ko doon jox noonu waaye yàlla xam na ne defuma fa dara defuma fa dara yow yow gis nga yow mi baax man na war naa xoolaat sama bopp nag ndax Djiby Samb ni mu mel ni ku yor gone naan ma yow yow yow man façon boobu daal man soof na ma ci moom daal man du ma goneem kii du ma goneem man kii ndijaayam laa voilà kenn ñëw sama kër gi dina ma fëgg ma ubbi ko waaw man man kenn du ma jox leçon de morale boo leen ñëwee